wala taxlamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yaxmaluun maa ngi nuyu ñëpp képp ku teew ci jataay bi rek maa ngi lay nuyu di la siyaare di jiital ci nuyo bi ki nga xam ne ñun ñëpp moo tax ñu teew fi tey muy Serigne Khadim Gueye xam naa waroon naa am temps bu baree baree baree bari ngir mën a leeral lu bari ci jëmmi sëriñ Xaadim mii ndax ay jëfam ak taxawaayam ci yoon wi dafa nekkut lu ndaw luñ mën a wax ci ñaari minit ku ne xam na ne jataay baa ngi bëgg guddi te euh, bàyyi benn bi bàyyi am benn bi ku ne xam ne ne itam jataay baa ngi bëgg a guddi te daa am lu ma daan dal bu yàgg te damay bañ daa am lu ma daan defaate bu yàgg yàgg te damay bañ ko ma ko def mooy bu sëñ Xaadim Géey duggee ci Abbas booy wax gaa yi dañ lay een lool bëgg nga noppi booy jàng gaa yi dañ lay een lool bëgg nga gaaw bàyyi loolu moom xam gu ma ko xama tax baye boo ma taxañ-taxañal li may wax rek te jox ko na xam naa wax ji moom nu mën a demet du saf kenn loolu moom man dund naa ko ba tey yàgg na ma ko fekke ci ay baas waaye sëñ Xaadim euh, man dama juddoo Touba yaroo fa màgge fa daanaka am na vingt-cinq ans yoo xam ne bu dul xel Xelkom mosuma fanaan fu dul Touba kon yaakaar naa ca goney dëkk balaa bokk te yaakaar naa fi ñu la gën a xamee ci àdduna itam Touba la kon am na lu bari lu ma xam ci yow donte bu dee toog jataay benn yoon la ma sa am ci àdduna ma di la xamal ne jataay boobee itam nag lu ma ni marke ci sama àdduna bariwul ndax xamal na ma ne bokk na ci mébét yi may maanaam yëg naa ne daal maa ngi tàmbalee doon kilifa nag ci bis boobu ginnaaw bi nga solee saw dàll ci lu ma yëgut ñëw ba ci sama saal nga toog ak man ba dem bi ma duggee day wóor na Serigne Touba yëg naa ne nag am na lu bari lu ma sañatuta wax am na lu bari lu ma sañatuta def loolu moom xam naa ko teyit mu am ay yu baree baree bari nag yu ma mën a jàpp ci yow gis nga sëñ bële ca gannaaw sëñ Guèye mële ma nga dëkk ca boori kër Abdou Dia ca boori kër sëñ ñaan boori kër ñoom Ibra Sarr mi am na guddi goo ko fa mayoon ay jàng yoo xam ne taxut mu xumb lool lool keroog maa nga fa woon ba jàng ya jeex di doo nga bu tol nii waaw mu doon am kum doon ñaanal te sëñ Xaadim nii ñëw fa jàng ko keroog ñu naan dana ñëw ak du ñëw ba mu yàgg nga ñëw jàng ya taxu ko woon a xumb keroog loolu ëpp na léegi mu man ñaar fukki at xam naa ne kon su ma ñëwaatee ci baas bi ma fekk ko fi mu nekkaat ak yow nam nekkee woon ak yow may gone daa ko gis ba tey ak sëñ Bàcci Jóob ñoom ñii loolu kon bu nu waxee ne ku am kóllëre nga dinaa ko gëm te it xam ne am nga kóllëre ak sëñ mbuub mii mosuma laa gis te gisuma ko euh, sëñ xaadim kebe mas na maa toog ba une heure wala deux heures ci guddi mu wooma téléphone ne ma man kat sama loxo bi day metti sama bëñ bi day metti te dama am programme maa ngi nii fi ma war a jàngee ma ne ko ah xanaa gone yi nga àndal amul ñu ci mën a jàng nga jox leen ñu jàng ba ba ba yëf yi kii rek mu ne ma déedéet xaadim géey yi dañ daa ànd mu feebar lool waaye teewut mooy jàng-jàng yi loolu sëñ xaadim kebe ma ko wax kon xam nga ne maanaam am euh, courage ci li ngay def am na daje nañ ci ay jàng yoo xam ne boor yi aliyéej njaane ca kaw jàng yee nag daanaka man ak yow ak groupe ba dong ñoo fa newoon group foofa amul courant ab groupe ba fa nekkoon di riir rek daanaka maa moom man lañ tuddee woon jànge waaye daal jàng yi moom daanaka fukki nit ak juróom ko <laughs> waaye ma ñëw ma ne comme jàng yi daa wéet moom comme man te man waa ji man la tànn tudde ko naa toog rek ba mu jeex ma toog tuuti sëñ xaadim mi fekk ma fa waaye mu jël micro bi jàng fa njàng mu yàgg mu posté fu moo xam ne ci laa xamee ne kii sëñ Touba lay jàngal waaye jàngalut nit ñi ndax bu doon xaalis wala public tey ci public bi nekku fi loolu fekke naa ko euh, kër gii nga daan jàng ci benn tali muy kër maam Boussa Gueye bii ci benn tali at ya nga fa jàng yépp mag ma fekk ma luyee ca biir kër ga waaw mu wóor ma ne daanaka bu doon maanaam kam doon jàngal si daanaka faatu na sax ci jamono yële yàlla na ko yàlla yërëm daanaka am na téeméeri bu doon ku koy topp ci xew wala ku koy joxub xaalis wala dara du fa teg tànkam keroog ba mu noppaloo nuyuwuma la waaye maa nga toog ca ba ca baas ba fa ma fekk jàng ba mu yegg nga jóg dem loolu yëpp ma di ko am keroog wax naa la ci sama kër ma ne la nit dangay nekk ci public. dem ba mën naa laa wax boo yoroon ñeenti soxna ñi ba nekk ci baas bi danga ci gis ñoo xam da danga da leen di romb defee ne xamuñu la fekk xam nañ sa soxna soo gën a nag xam nañ sa doom joo gën a bëgg xam nañ sax ceeb yi bi la ci gën a neex xam nañ couleur yi mbase yi la gën a neex te yow yaakaar nga ne kii xamu la loolu day dal ko siiw te nag lii may yàgg-yàgg Tuubaa mësuma dégg lu la nit di xeebe loo xam ne wóor na ma ne yaa ko def wala sax nit di ko wax te wóoru ko sax kooku mësuma koo dégg li taxit ma jël kàddu gi nag lenn képp la mooy soññi nit ñi ci laaj bii nga laaj mooy daara ji nga bëgg a taxawal te publier ko ñu jàpp ci li tax loolu mooy mësumaa dégg loo laaj wala koo laaj sëñ Xaadim Géy daa bëgg nangam mësuma koo dégg mësumaa dégg ñu ne ñëw leen jox sëñ xaadim ngay nangam wala sëñ xaadim ngay ngay woote nangam wala daa bëgg ngeen jàppale ko ci nangam nit nag man mii sax nga xam ne léeg-léeg nit damay faral di wax soxla ki ma mësta wax soxla su ma ko waxee maanaam ko balaa ngaa jóg dama koy faj ndax yow doo waxantu soxla waaw bu doon lu may laaja bu ma ko mënuti dinaa ko liggéeyante ndax damay xam ne kii moom moom du laajant ndem nag sëñ xaadim nee na dafay def daaray alxuraan bëgg koo ànd ak taalibe sëñ Tuubaa yaakaar naa ne képp kuy ab taalibe ndax sëñ Xaadim moom réerut ci yoon wi yaakaar naa fii ñu toog képp koo xam ne xam nga turu sëñ Muntaxa Mbàkke tey ab murit xam nga turu Xaadim Géey loolu moom moo am su fekkonte ne itam dañ koo gis muy yéeg ba mu yàgg mu tàmbalee daanu na ñëw leen jox ma dañ naan sawaay oto bee paan mu bëgg lum lijjanti wala daa tàmbali tabax ak aggut wala daa am ngoro gu dëgër gum yëggalewut wala dara waaye sëñ xaadim yaakaar naa lépp lu nit di wut ci àdduna am na ko ba noppi doog a kon kooku dafa bëgg kum àndal liggéeyal sañ tubaa loolu lu mat a bàyyi xel la bi ci des mooy dakaar ngeen nekk gis ngeen ñi bëgg Balla Gaye li ñuy daj ci moom dañ koy fanaanal ci buntu kër di génnee jaasi ndax moom di cotiser man mii léeg-léeg ca benn tëli gee ma nekk ay gone ñëw ne ma mbër sàngam dañ koy supporter dafay bëre ji tey jàppal ci komba bi nga xam ne mbër mi sax man xawuma ko waaye gars yi mbër mi rek ay ñëw te man bëggumaa joxe ci yooyu dama naan la demal ba bis nangam waaye dañuy ñëwaat neen jàppal ci combat bi da ngañ wax ba nga dugal ci sa alal te loolu gis ngeen ko fii gis ngeen kuy dee ndax mbër gis ngeen kuy say ndax mbër gis ngeen loolu lépp sëñ xaadim mii nag ba muy xew fii ci réew mii booba lu ñuy wax ay Balla Gaye yi xew niveau bi mu yegg ci siiw ak li ñuy wax xubul ak mahabba te yaakaar naa tubaab di ko wax charisme mooy àgg ci nit di la dégg ba gis la ne dara daanu xam ak nit gis la di jooy ak nit gis la ba tiit ba mënta wax loolu ba may gis sëñ xaadim di ko dund man booba awma fukki at ak juróom kon li ñuy wax star haut niveau la dégg nga su fekkee nag nit ku mel noonu am na nga xam ne tey bu bindoon lettre président Macky Sall léegi léegi léegi su ko nee Khadim géey la bëgg bu tapé internet internet na ko jë uyu woo ko su woowoon Macky yu fay na ko dafa am murit bu ñuy wax Khadim Gueye mu ne ko yee woo ko kon yaakaar naa kooku ñàkku pexe te it kuñ xam la kooku nag bu yàlla dogalee mu jël mbiram di ko booleeg sa mbir da koy xam li ma bëgg foofu mooy yéen dayram bii topp ci moom yéenay am fulla yi xam ne sëñ xaarim kat ci liggéey la nekk ba toll fi mu toll lu koy yokk ci rek ci la nekk yéenay am fayda yi sama kalaas gii bu ngeen noppee yoonu murit alaaji mbakki yu fay ak sëñ am jóob ak maam mor mbaay ak ku ne da ngeen di dem këram ne ko nun ñii ñooy ànd ak sañ xaarim te dafa am lum ñuy defar loo danoo bëgg nga dugal ci sa loxo topp ko ba mu def ca ngeen liggéey ko ba mu yegg ci aw turam loolu yaakaar naa ne weesu ngeen koo man damay bañ nag euh, li dal sëriñ su bari dal ko <coughs> mooy say taalibe ñee la booy ngénte ñu ne ah sëñ bi mën na ko booy ceetal ñu ne sëñ bi mën na ko jarut jox dégg nga day dem ba dal kilifa ba njariñ li nga waroon a jariñ ñi lay topp duñ ko def duñ ko def loolu rek rek rek billaahi barke sëñ baara loolu képp moo jox ma jël kàddu gi ndax ñoom sëñ xaadim mii dañoo sagu danga leen gis ak oto yi ñu am gis leen ak lépp waaye nanga xam ne contrat bi la léyee ak ñoom du wàññi leen waaye yokku leen moo la tax ay jóg loolu yokku leen moo la tax a jóg bul ne rek sëñ xaadim kat buy laaj daara man na ko déedéet yow fi nga ko war a féete féete ko fa fi nga ko war a féete féete ko fa bi ci des mooy euh, rek ma boole ko jànkat yëpp mooy ñii kii mi ngi wax léegi ni mu nekkee secteur de développement moom sëñ Xaadim day xalaat loo xam ne aw nit dinañ ko mën a topp di ci dund muy sëñ Ibra Sarr mii keroog bi muy ñëw sama kër lim àndal ci nit mën na fukk te ñëpp xam naa ne mooy tax ñi am dépasse parce que moom la ñuy aw tey boo taxawoon nga ne ñi ma tax may am dépasse ñëpp boo moytuwul yaay ëpp TFM ñooy fay yow entreprise yu mag yëpp yaa leen ëpp ñuy fayee ko ci yow te loolu ci sa xalaat lay jóge bi ci des mooy aw yoon mu yoonu sëñ tubaab yi amul lu dul ab jeunesse bu ñu sëñ Muntaxaa mënee tere Yuusu Nduur mu réussir yéen a nekk tubaab de bu sëñ Muntaxaa tere woon Yuusu Nduur te nekku leen fa waaw Yuusu Nduur dugg fa mu yëg ko ak mu ñàkk koo yëg xaw ma li ma wax xam ngeen koom dem bu sëñ Muntaxa ne woon sii di Diop ak Waly ak Youssou ba guma leen ci dëkk bi te xaadim Kebe xaadim Gueye Lat Diouf nekkuñu fa danañ fa ñëw waaw dañoo tere yuusu Ndour ba noppi andi la fa loolu dafa am solo bi ci des mooy bu la yàlla defoon ni mu la def tamit ba murid yi jànkat yépp ni ngay toogee la ñuy toogee ni ngay takkee weer la ñuy takkee weer saw doxalin la ñuy doxale protocole bi ngay teg sax moom la ñuy jéem a teg soo doon ŋànk cigarette di nga yàq lu bari ci yoon wi kon ñakk gi ngay ñàkk ŋànk ci cigarette gisuñu la ci ay baal gisuñu la ngay ànd ak manakin dégguñu la ngay triyaane dégguñu la ngay dugg sa yoon nekkut na nga xam ne loolu mille mille milliers de jeunesse influence nga leen ci loolu nga nekk kon yaa ngi dimbili sañ tubaa ci yar yaa ngi dimbali sañ tubaa ci yoonam bi kon loo taxaw ne da koy def ci yoonu sëñ Tuubaa wii man de xàmmewuma ko ak ndigal lu sëñ Muntaxaa joxe waaw te maa ngi ñaan protocole bi wër sëñ xaadim ak gaa yi boppam yi nañ takk ndigg nañ ñëw sama kër sëñ xaadim jinne mii sëñ Mor Samb gis naa ko fi kenn ku nekk da ngeen koy seeti wax ko wan ko plan kër gi ne ko danoo bëgg nga dugal ci di waxaat timit ngërëm li nga xam ne man xam naa ne am nga ko ci sëñ Touba l'an 2000 nga génnee woon asiru mahal abrari xiina asiru wasannal ida anni onaka asiru ak maam jaaratullaay l'an 2000 takkusaan ju jot sëñ Sidi Mokhtar nii lay tooge teg rajo bi nii laaj ko Xaadim Jóob wala Abib su maam jaara bi dawee ba jeex mu ne koc mu wëlbatiku mu wëlbatiwaat set bi tegaat damaa dem ba mokkal ko parce que déglu gi mu ko daan déglu su dégloo maam jaara bi lu yàgg teggi ne teg dugal asiru bi loolu man fekke naa ko waaw te sëñ Sidi Maxtaar du déglu fo du ci dox jëm te ñaari band yooyu ci moom billaay fu ma ko dégg rek sama xel ci moom lay nekk sëñ Abib mii wala sëñ Xaadim laaj ko ko takkusaan takkusaani sëñ Sidi Maxtaar l'an 2000 kay at moomu ku mas a toog ak moom takkusaan ak timis maam jaarab sëñ Xaadim Géey baa ngi daw ci wetam kon loolu dama lay wax rek ne li ngay def nekkut ay gone nga koy defal wala ay murit yu dof wala ñuy xëlëf xëlëfi déedéet li ngay def njabootu sëñ Tuubaa gépp ko considéré te ki ëpp personnalité ci yoonu murit gën cee yew gën cee diiñ gën cee bëgg lu baax moo la tamponeel muy sëriñ Mbàkke Soxna waaw kon nag defe naa ne noonu amuñu luñ lay wax pour dolli la waaw koo xam ne koo ñëw këram mu fatawoo ak yow bu xëyee bu sañoon ñëpp gis fataw yi sëñ xaadim ñëwoon na fi sëñ xaadim ñëwoon na fi kooku yaakaar naa nit ñi ñooy dolli ci yow mais dolli ko too ci kenn kon nag sa liggéey bii maa ngi ñaan ci sañ Touba mu àgg te am jàmm te nga dem ba naal yeneen ak yeneen ak yeneen ci doole sëñ tubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin. cérémonie bi de yaa ko def moom. muy